communiqué bi bàyyeekoo ministère de la santé et de l'action sociale tey bésu altine fukki fan ak ñaar ci weeru avril mi ñu nekk ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj ci junni ak ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi test yi ñu def fanweer ak ñeent ñoo ci positif ci positif yooyu am nañ ci fukk ak benn cas contact mooy ñi jot ci mbas ñi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji amuñ ci benn cas bu jóge bitim réew maanaam importé waaye am na ci ñaar fukk ak ñett ñu tuddee cas communautaire mooy ñuy jot ci mbas mi fekk xamuñ fi ñu ko jëlee walla ki leen ko wàll ñooñu seen lim nii la tëddee ci Ndakaaru ak li ko wër am nañ ci fukk ak juróom yu tëddee nii ñaar ci Médina Nord Foire ak Plateau benn ci jëppal Dieuppeul Fass Guédiawaye HLM Liberté 6 Ouakam Scat Urbam ak Yoff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 ñu ngi am tan ci bësu tey dalee ci kaw bu njëkk ba Sénégal wëññi na fanweeri junni ak juróom-ñeent ak ñeent téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ci ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu fanweeri junni ak juróom-ñett ak ñaar téeméer ak fukk ak juróom wér nañ ci junni ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent ñàkk seen bakkan mu des téeméer ak juróom-ñaar fukk si lalu hôpital yi ak yenn malade yi nga xam ne ñu ngi leen topp ci biir kër yi ministère de la santé de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn adduna yàlla xare xare ko àjjana di ñaanal ñoo ñu des hôpital ak ñu topp ci biir kër yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm ministère de la santé de l'action sociale mu ngi leen di xamal tamit di campagne vaccination bi ñu jagleel mbas mi dooree ba léegi ñu jot a ñàkku ci biir réew mi ñu ngi toll ci ñetti téeméer ak juróom ak juróom fukk ak benn junni yu teg ñetti téeméer ak juróom ak ñaar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 bu ñàkkoo ba paree nañu denc seen i carte bañ a fàtte seen rendez ngir mun a tollanti ñaareelu dose bi di wéy nag di sàmmonte ak digle yi ñuy joxe bés bu nekk ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam